ASC yi nga xam ne ñoo nekk ci mouvement nawetaan moom loolu moom ëpp nañ vingt vingt quatre vingt cinq ASC te jàpp naa ne nga jël ci ci vingt cinq benn ASC rek muy def yenn don yoo xam ne di ko def xam nga loolu aussi euh, jamono dañ ko war a saluer rafetal ko te ASC aussi dañ ci war a copier wu xool ko di ko def pour ñoom aussi seen développement u quartier que ça soit muy muy muy yeneen équipe yëpp bu mu mën di doon na parce que bu royukaay la boo xam ne buñ koy gisee à yeneen dëkk yi sax dinañ ci dinañ ci dinañ ci roy pour mën a def euh, di def don yi nga xam ne moom moom la ASC mbooloo bi parce que initiative bi mu jël lu rafet la ba pare ñëw invité ma ma ñëw man man aussi suma suma collaborateur la ñoo bokk di ci district bi ñoo bokk aussi ci mouvement nawetaan ñoo bokk zone yàlla dañoo boole ci lépp parce que suma ASC mi ngi fii tout près ñoo takkaloo kon tey suma invité ci ci ci ci ci ci don yi muy def pour jàppale euh, koñam ci ci karité gi damaa sawar loolu pour ñëw di ko sant di ko remercier di ko gërëm di gërëm aussi ñëpp ñi nga xam ne dañoo nekk ci encadrement am topp ci gannaawam ànd ak moom di ko jàppale ci mbir mi aussi di leen di leen gërëm di leen sant aussi suqali sport moom ñu ngi ci parce que boo xoolee avant ñun ñu yàlla def ñu ñuy fal boo xoolee kenn xamutoon lan mooy district bi ñu falee nag aussi ñun ñu ñëw booloo ñun ñëpp doon benn di defandoo di dóorandoo lépp lu ñuy def dañ koy waxtaanee bi ñuy ouverture championnat bi sax dañu convoqué une réunion ñun ñëpp ñu toog waxtaan a xool nan pour développement wu football bi avancé à chaque fois que ñi ngi ci nag mais nag du loo xam ne doo koy waxtaanee ci biirum nekk da nga koy ngi ci moom à chaque fois que ñi ngi ci suba ngoon guddeeg bëccëg luy développé sport ñi ngi ci mbay mi aussi particulièrement moom lépp loo xam ne day defaral day développé sport moom chaque jour que jafee mi ngi damay woo téléphone bu amee benn idée bu rafet woo ma ne ma président est que duñ def lii est que duñ def lii loolu mooy booloo bi te mënoon na am ay idée am daal koy téye daal di kon boobaa développement même rek mënu ma mënu ma doxal mais moom mu ngi ko mu ngi boole ak ñeneen ñi nga xam ne ñoo bokk district su xoolee ngeen gis tey ñu ñoo ko def mu nekkoon quatrième édition ñu ngi ko tuddee journée sociale jokk mbokk parce que mbir mi du ndimbal ndax tamit ndimbal moom ñëpp xam nañ ñu ko gën a yelloo waaye ci biir jokk mbokk bi am na ñoo xamante ne yelloo nañ ko yelloo nañ ndimbal li taxoon nag ñu koy def mooy dañ doon jouer championnat amoon suñu kees xaalis biñ amee rupture nag ñu ne championnat bi arrêté nañ ko li nekkoon ci kees bi dañ ne comme nit ñu dañ doon jël seen alal waa koñ bi di ci jàpp kon baax na ak Covid li mu méttee ñu jël ko masawu leen ci suñu ko tàmbali woon ñëpp rafetlu ko nag Mbàkke bool gépp Sénégal gépp bari jël sa initiative tàmbali di ko def muy à des associations donc ñu ne pourquoi pas continuer ko li ñu si jublu nag mooy gën a jokk mbokk bi waaye gën a message askan bi ñu xam ne nit dina dëkk ci étage fekk ne mu ngi dund ay difficulté te nit ñi duñ ko xam nit nekk ci zinc nekk ci condition yu confortable te nit ñi duñ ko xam moo waral ñu généraliser ko rek daj ko ci gox bi yëpp waaye tamit dugg ci biir dëkk bi tamit ñenn nit ñoo xamante ne dañoo baax ñu jël seen alal lu fu ñu gis lu baax def ko si ñoom it ñu laaj leen ñu jox ñu ay nit ñoo xam ne dañoo dëkk ak ñoom te seen loxo jotul seen ginnaaw ndax dañu bëgg mu nekk solidarité nationale ba internationale ndax idée bi ndaw waa ñu ànd ko suñuy papa suñuy yaay ak dirigeant koñ bi yëpp ak waa dëkk bi rawatina nag sunu mag yi nekk bitim réew bu ñu tàyyi si di leen ci masaw ndax ñëpp xam nañ ne fi mu nii génn sa réew li mu metti ak événement ñëpp ay taxaw soxla yëpp taxaw mais ñoom sax ñooñu ñuy soññ naan ñu mbir mi kañ la ak est ce que yéen a koy waaj kon loolu yombul tey am nañ si sax lu kaay suñ ndax daaw liñ defoon ren dañ koo doublé terewul. léegi la ñu woowaat ay commerçant pour ñu fourniraat ñu yeneen denrée ni ñaa ngi jógee fu nekk di ñëw waaye sant yàlla la ndax bu nekkoon lu bon ni ñu duñ ñëw ñi day wane ne rek état bi war na gën a góorgóorlu si couche sociale bi parce que tey boo ñëwee ci quartier yi association yu ni mel ñu ngi koy def ëttu jokkoo mu ngi koy def feneen ak feneen ñu ngi koy def bu jaaree ci branche yooyu rek dina gën a yaatu parce que tey suñu amoon soutien commune bi mën nañu am soutien le ministre maire personnellement te aussi nous attendons son soutien aussi moo waral ñu ne dañ koy mu muy suba ak gannaaw suba ba jour Korité nit ñi dañu continuer di ñëw mais nit ñi bu ñu ñëwee tamit mu ñuy jaay suñuy téléphone sax dinañ ko jox lañu koy def ndax du ñu tas yaakaar mais tamit donc si loolu la ñu profité di wax maire bi en tant que institution bi mu jàppale ñu. xam nga daaw jox nañu ren jox nañu daaw jox nañu subvention biñ paree la ñu doog a jox subvention musuñ ko am nag doo ko siy remercier moom le ministre maire Gallo Ba ndax c'est la première fois ñu équipe division régionale bi ñu jot subvention deux cent cinquante mille mu koy kay santé di ko gërëmee aussi équipe municipale bépp waaye tamit ñu koy ñaan mu yokk ko ndaxte tey liñ fi def nii jarul sax ñu tudd somme bi parce que boo tuddee somme bi day mel ni da nga koy ndamoo wala dara en tout cas somme bi élevé na te kawe na suñ jot te waaye daal lim laal ëpp na trois cent cinquante famille te pareeguñu liñ fi defar nii sànq mën na trois cent cinquante couche mu toi kii euh, sose te pareeguñu ba pare aussi ay nit dañuy ñëw boo leen joxe ba noppi soxla nañu ndawal kon daal li ñuy wax maire bi mooy na jàppale association yu ni mel subvention yi mu gën koo duunal gën si jàpp waaye jëf bi ñuy def tey ba waroon Mbàkke ba Mbàkke daj amul association boo ko fiy def rawatina association sportive ñu ngi en plein championnat phase aller la ñuy doog jeexal xaalis bi mënoon nañu ko jël di ko def ci ay match wala ñuy laaj nit ñi pour di ci jënd ay bonhom wala dara mais dañu koy jël def ko social bi ba jël kees gi ñ war a joué tamit laaluñu ko mais tey mooy li ma lay wax suba gannaaw suba fi yëpp nit ñaa ngi soxla football bi du priorité si ñun dañu woo président bi mu décanté xaalis bi nekk ci kees bi ñu jox ko askan bi ndax askan bi fi ñu ngi daw du ñu wutal si dañuy jël li ñu yor delloo askan bi